Euh, président Macky nuyu nañ la Sall Ndiallam Tor Arwar Boury. maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu encore une fois allez fan yii passé dalal naa ko <laughs> jox ko cent soixante millions. Ah. Eh? di la nuyu encore une fois. <laughs> Euh, soxna si. moo lay nuyu di nuyu nga xamante ni kii mooy Boy Diop di la nuyu di sant bu baax si tawaay bu nga xamante ni bi aussi teew naa ko si plateau bi. Mhm. di lu nekkin mu nga xam ni nekk naa ko si réew mi di la nuyu. Euh, maa ngi lay fay lu bare bëri balaa boobu dañuy félicité ki nga xam ne rek moom moo di première daam mi nga xam ne réew mi fi mu toll mu nekkoon ci li nga xam ne moo di kii mu neex loolu moom macha allah ñu ngi ko ci waaw loolu ñu ngi ciy félicité première dame dëgg yàlla ñu ko ñaanal jàmm <laughs> yow. wala nuyu Adama Faye bu baax a baax daaw na. article quatre vingt lay xaar. waa président yow yu waaw embargo waa ma ne ba pare nga fay dem yow. toog sa toogaay bu rafet bi ah, toog sa toogaay bu rafet bi yàgg question bi ko wax da ngay waa Mali. moo ma ko wax mooy ku la ko wax. waaye lii lii lii liggéey la moom quoi. tey boobu lu waay neex de. ah ndax lu xew. feet la woon ngay nelaw sa kër ñu woo la di la xëyal liggéey si kon lu waay neex. nga ñëw teewlu woon question yow dégg naa yaa woote. ne loolu la waaye yow ku toll ni président sañoo ko woo ba fii nag. naan ko ah sama waaye ndax dama koo bëgg. waaw dama ni yow yow yow président Macky ñu am waa Mali embargo lu. Ah, waa CEDEAO. Mm, embargo Mali. embargo Mali ba pare yow nga fay dem nga nopp ci nga nopp ci après dafa faa dem. say nopp mu jeex mu yëkkati ko. dama lay dimbali rek oh kontaan naa demal. <laughs> jërëjëf soxna si si laaj bu am solo bi nga xam ni laaj nga ma ko. ak yàlla laaj. nga dimbali ndaw si nga xam ni xamul li xew boo gisee li xewoon lépp Ousmane Sonko la. moo commencé eh, ah bu ci tudd Ousmane Sonko nag. Sonko tey moom déedéet ah. tey moom président may ñu rek bu tudd Ousmane Sonko. ah non déedéet déedéet tey ah sarax ñu rek ngir yàlla monsieur le président. déedéet Ousmane Sonko bu ko fi tudd tey. danoo sonn ci Ousmane Sonko déedéet bu ko ci bu fi wax tey Sonko. xam nga Sonko moom moo aar nga embargo woon Mali. non moom si ah. lan waaw lu mu nekkee moom. Sonko day ruube. lu muy ruube lii kañ yoonam nekk ci lii moom yoonam nekk. Sonko a ma ne ko lii moom yoonam nekk si. li nga xamante ne bi moom la def mm. loolu moo jaaduwul mm. moom si boppam parce que moom moo tax li nga xamante ne bi mooy embargo bi ma def ko kii mais léegi Sonko lan la def ba mu jaaduwul loolu lañ bëgg a xam xam nga yow euh, déedéet xam nga président yow da ngay tooñ wax dëgg yàlla Sonko mm-hmm. waa egli xalaatam la waaw waxal Sonko du xalaatu Sonko. ah kay xalaatam la. du xalaatam du xalaatam moom du xalaatu Sonko. bàyyi heure bu na invité fii ci ci ci. Euh, c'est Ousmane Sonko c'est Ousmane Sonko c'est Ousmane Sonko li ma wax leer na. c'est Ousmane Sonko posé ko question c'est Ousmane Sonko. waa déet man kay xam nga nit boo nee diw la da ngay wax lu tax ngay diw la laaj na la question lu tax nga ne Ousmane Sonko la. so sëñ bi dama la bëgg a xamal ne la affaire Mali bi wax naa ci ak. mais Sonko nee wax naa ak moom. Ah, mu ne ko mais mu ne ma Ousmane Sonko la. <laughs> waaw Sonko lu ci doon Sonko lu yoonam a roubé l'Afrique. waa léegi daal lu mu ci doon daal moom moom moom. moom lan la ci doon moom li mu si doon mooy ruuxale Afrique. ah mooy jaxase les soldats de kii la. waaw ah, mais moom Sonko nee na xamul président ivoirien yi dem wàcc fële waaw Ousmane Sonko encore. ah ah ah lépp ah. tamit Ousmane Sonko la mais Ousmane Sonko kon moom garaaw na di. Sonko la. yow loo mënta lijjanti loo xam ne Ousmane Sonko kon dem na ba lijjanti loolu ba guerre ba ñooñ dem ni yow. mënoo koo lijjanti yow président. moom la Sonko la. yow borom 160 millions yi moom moom daa fal sax président moom daa fal président te dara xew. loolu président la muy laaj. amoo loo ko laaj. merci. sëñ bi te nga laaj xaale <laughs> du ma la dara laaj président joxoo ma dara. wax dëgg yàlla setal sa der. waaw da ngay déggoo li ma wax xanaa. allo yaa ngi jéngu de. dara joxoo ko. baax na sama. Hmm? mais président dañu bëggoon na nga wax ñu nag euh, en tant que euh, yow ñu ngi waajal li nga xam ne rek moom moo di remaniement ministériel bi yaa ngi koy préparé fi mu ne nii. kan nga war a def ki nga xam ne rek moom moo di premier ministre ak lan nga war a def. remaniement bi. nga xam ni moom laa war a def. Mhm. waxal wax ko damay takk rajo. di lim ñi ma war a jël may ma. ku <laughs> déggul sa affaire bi dama ko bëgg a def comme résultat yi ñuy joxe bac. Ah, ñëpp dañuy ñëw teew. nga may lim kenn ñi nga xam ne admis nañ pour nekkaat ministre ak at admiwul. parce que dama bëggaat sensation boobu nga xam ne ñoom ñëpp dañuy taxaw ak seeni jabar ñi nga xamante ni bi dugg nañ dugg ñi eh. ma éliminé yàqu bu ko defee bu boobaa les autres tout le monde ñëpp wax naa leen pour ñu dajaloo ñoom bay Ndiaye Uh-huh. ñoom ñëpp nañ ñëwaat ñoom nee nga dàqal ko am na directeur bu mu bëgg nga dàqal ko. dàqal ma benn directeur. <laughs> ndeysaan nekkuma di dàq ay directeur quand même. dëgg la dafay changé dafay def revenu man nekk di doxal naan ay dàqal kii dàqal dàquma ma ba. allez jërëjëf euh, jëf euh, monsieur le président. merci beaucoup kontaan nañ tey sa dem gi nga sa dem gi nga dem fi nga xam ne rek moom moo di Mali yàlla na fa jàmm sax amiin amiin ñëpp ñi nga xam ne rek ñuy xel ah, ah. Euh, waaw di ci nuyu Anna Dramé kontaan nañ Dramé ci anniversaire bi li nga li nga ma ci defal lépp yàlla nga ko yàlla na la ko yàlla joxaat ndax tamit wax dëgg yàlla Dramé bu la neexoon doo ko def mais kontaan naa kontaan sama doom yooyu tamit di kontaan ci Boubacar Samba Samba Sane ku ma ngaleel ba caractèrement yow it nag lépp yow la Samba Sane donc buñ jógee ci euh, ki nga xam ne rek moom moo di président Macky dañuy dem ci ngañ bawol bawol ngañ ñuy nan la. expert ci inondation waaw soo la di sant yàlla sant sëñ Tuubaa di la gërëm. di gërëm bu baax ñoom gone yi ñoom aale ñi nga xam ni di nga am. dépassage gratuite xoolal ci li ngay liggéey te bàyyi xiini xiini gi waaye <laughs> waaye soxna si dañ la kumpa eh. yaa ngi ci émission bi yaa ngi ci biir damaa tiit ndax damaa gis ñëpp génn ma tiit damaa defoon ni woon daraa fi xew lu xew xaw ma ko waay waay waay waay nga ñu nag invité bu yeewu a dalal loolu naa waaye bàyyi xiin xiin gi <laughs> professionnel soit professionnel <laughs> lii xanaa boo demoon guerre doo def émission normale wala waroon nuy fee ay bal sax fetal nga nekk professionnel Cheikh Abdou professionnel la bu bu ma demoon guerre bu doon def loolu du ma ca bokk. ndax du ma def loolu. da war a professionnel yow bu waay taxawoon fa lay yor yat ñëw daw si di song eh, naa ma taxaw ba mu dóor ma. ci plateau professionnel nekk ci sa débat bu ko dóoree nga daal di faatu yàllaawu ci professionnel. yow looloo ma looloo la ci yow looloo la ci nekk naa faatu ci yàlla yow. Euh, waa euh, noo gisee li nga xam ne rek euh, moom moo di en tant que expert. Mm-hmm. inondation bi amoon Dakar rawatina fi nga xam ne moo di zone de captage. Euh, ak feneen ak feneen ak. waaw yow noo ko gisee en tant que expert. jërëjëf inondation bari na te bokkul. waaw y a des inondations et des indo inondations. et des. inondations et des inde inde inondations. <laughs> inde inondation inde. waaw inondation boo seetee euh, fi nga xamante ne mooy Kër Masar. inondation ñoom ren gisuñu dara de. waaw yii macha allah Omar nee na dara amu fa. Ah. Ah. ci lim la wax. kër ak la am du benn. waaw <laughs> waaw ay waxam. Mm. Euh, boo demee Kër Massar yaa inandaa. Ah. am na day wax xalaatam <laughs> day wax xamoo dara buñ la bu doon professionnel su ne ci pétrole yaa ngi ni dugg nga ci pétrole dugg ci or. gaz <laughs> inondation génn ci. ku la ko wax dama ne. zone de loo xam foofu nga xam ni dafa def la inondation barisme eh. nga xam ne bari yi ñooy génn di kooku c'est la inondation barisme oh, kii laay woo de yow ku may woo ni yaa may woo seen bi de waaye li nga di woowante di moom may woo wala tax nga woo ko yooyu ma ci xam damaa jékki-jékki ma dem. inondation barisme. barisme mooy bar. nga xam ni ndox mi dégg nga am dafa ñëw. bari yi génn fi mu ñoom amatuñ jaaxlem ndox waaye jaaxlem bar lan am. te bar nag kenn mënu koo man loolu moom am na moom. loolu leer mairie bi bi muy diggaale mais la mairie est incompétente de mucc dee bar. maanaam mënuñoo manqué bari bari day day sakk moto pompe. bu ñu ngàccee ndox mi. bari songu leen bu ñu fa bàyyee ndox mi. bari yaa ngi ndox maa ah. waaw te nag da ngeen di faral di xuus. waaw diggante yooyu. yow amoo danse waaye kii mi ngi ci danse. <laughs> bar day yéeg escalier. escalier bar day yéeg. escalier dem ba quatrième étage. bar de. bar day yéeg. bar bar bar bar il monte. bar day yéeg de escalier sa bunt. kuy ndox ma yéen na ma ko gisee mu dugg ci suñu biir kër ga bari yaa ngi ci xam fu ñu dëkk. dama ko romb ah dem gis naa ko. muy xuus muy xuus maa ngi ca gaal ga romb. yaa ngi ca gaal ga. waaw yow mii. maa ga yow loolu loolu foofu nga. romb leen yow da koo foofu. yow loolu foofu nga. dox léegi. Euh, expert damay wëlbatiku xool fu ne la ko inondé ah. lan moo tax mu inondé ak lu ko war a. mais xam nga foofu terrain terrain baa nga fa. terrain baa nga fa léegi terrain ba bal yaa bari yaa fay football. Ah, terrain ba de lan laa fa lan laa fa ah. dëkk de. vous avez beaucoup de problèmes donc nag léegi yéen li leen li ngeen war a li ngeen war a ñaxte mooy lenn moo leen mën a dimbali. Mhm. ngeen tàggoog bari yooyu. nu nu ñuy def ba tàggoog bari. bombe atomique. bombe nga ni bombe atomique. <laughs> bombarde bari sonta captage ñu bombe atomique. <laughs> ngañ de booy génn. woo leen Poutine mu dóor leen bomb. di ah, ah, ah Poutine. <laughs> yéen Poutine doo nga mën a dindi seen jàngoro ji. Poutine daa ñàkk ca de. Poutine rek. baadu jaawale baadu jaawale quartier Poutine. Poutine daal bu ngeen ko wut seen jàngoro du saafara. Poutine mu ñëw rek bombardé zone de captage bu ko de captage jeex. ñu raser ngi ñu raser ko. parce que sonde captage il est parce que ndoxi Ndakaaru yëpp fa la jëm. Ah, tous les lots Ndakaaru sonde captage. tous les ah lots tous les sonde captage. atelier mécanicien yi fa nekkoon tuxu nañ. Fadja ngi. zone de captage. mais almadi ba ngeen toogee ba gisul leen atelier mécanicien zone de captage ngeen war a xam ne wóorutul. <laughs> yàlla ah. ba ngeen demee ba gisatu leen zone de captage. atelier mécanicien boobu ngeen war a toog man kay ngañ en tant que ah, expert léegi yow lan nga nuy lan ngay xelal ajaratu béti moom mi nga xam ne bari ñu ngi wetu këram. ak yow mu wut esel di ci doxam di di di kii. yow li ma takkal càkkaam bu dee mën ngaa takk càkkaam. <laughs> sa temps wa jeex li ma leen di conseil mooy yéen waa son dakab taas wut leen càkkaaba di dox <laughs> leen takk càkkaaba di eh, dégg naa sax dafa xiin ba ñuul nii ku yebu ñu jug nii nee naa mi ngi taw waaw mi ngi taw mi ngi taw waaw dégg nañ ko de taw fort ah xamuñu de mais ndax xam nañ xaaral ñu merci bien <laughs> ayca mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal invité yi waaye jaajëfal également ñi newoon ci caméra yi euh, Kéba Thiam ak euh, Babacar Lo borom Ndiambour du côté de la régi Serigne Aliou Keita ak Bintou Fall borom Kër masaar ñu jox leen daje suba incha allah ci kàttanu yàlla. lobbu gaz Mame Diarra Bousso mi sàmm kaarange client bi ak KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ñoo leen doon may seen émission Taku Show.